lam yaquutaa ñoom ñaar rëccëguñ foofu la suñu dund keroog yemoon duñ tey nag ci ay masala yu am solo tabarkal yëpp am solo waaye bu tey bi ma dégg dina am solo benn wa man sallama shaakan fi kamaali salaati ku sëlmal ndax da ngaa sikki sàkka ne sa julli mat na batalat salaatu bu julleem yàq bu doon julli ba mu yàgg nga daal di sëlmal jàpp ne si julli mag yow sa julli yàqu ndax saa boo sikkee sàkka si julli gi mat naa matut da ngaa war a yëg ni mot nga indi la ko mottali door a sëlmal waaye boo sëlmalee nag julli ba yàqu na ndax ñoo jàpp ni motut lu may masala bi dëkk benn masala bi wastahu fi salaat alqadaa jama ci jullit fay këstat bi fi salaat aladaa mi ngi mel ni jama ci julli ci waxtu maanaam ku doon julli waxtu bii takkusaan xam nga yaa ngi fay nga jama ca yaa ngi mel ni kuy julli jee jama wastahu fi salaat alqadaa këstat bi fi salaat aladaa jama ci julli goo xam ne da nga koy fay moom jama ci julli goo xam ne da nga koy joxe ci waxtu bi ñoo yem jam boobu leer na wastahu fi naafilati kastahu fi farida jama ci naafila mi ngi mel ni jama ci farata kuy julli di naafila jama ci yaa ngi mel ni kuy julli farata illaa fi sitti masail ba mu def ci juróom benni masala juróom benni masala yi sun naasi la ak farata yemlewu loolu nag ñëpp ko war a xam waaw loolu moom yor na yor bind xay natt ko parce que ñëpp ko war juróom benni masala la yoo xam ne moo wóotale naasi la ak julli farata lu dul loolu rek jama ci farata ak jama ci naasi la ñooy yem dana ko waaw léegi juróom benni masala yooyu laa bëgg mun na la alfaatiha jama ci faatiha wa suurati jama ca saar way tege ci ginnaaw faatiha wa sirri jama ci yalu yalu mooy jàng nan wa sirri jama ci biral biral mooy jàng ca kaw wa ziyaadati rakaati jama fa dolli ab rakaat wa nisyaani ba'di arqaam ak fàtte lenn ci farata julli in taala su yàggee juróom-benn yi moo wutale jama ci naafila ak jama ci farata jàng faatiha saar wa tege ca faatiha yelu njàng ma jural njàng ma yokk baraka fan yi baax dégg nga de nga ne ko détaillé ko mu ne fa man nasiyal faatiha ku fàttee jàng faatiha fi naafila ci cig naafila genn waa ñu julli naafila mu kabar jàng aw saar fàtte na faatiha wa tafakkara mu fàttaliku faatiha ja baada rukuwaay bi rukuwaay ba noppi dafa kàbbar jàng saar wa ca war a tege daal di rukkoo naka mu sikki yëg ni rakka bii mu nekk jàngu ci fàtte bu dee si naaj la tamaada day continuer rek wa sajada mu sujjoot qabla salaam ba daal sëlmal li gi daa wàññi ko ne ah mu ne waaw fii xilaafi faridati waaye wuute naa farat ma laaj leen bu doon farat ñu def bu doon farat nu muy def fadal mu ngoog loolu mooy suñu masala mi def bu doon farata day sànni rakkaa bi amul farat bi amul fatiha moo tax mu ne fa innahu su boobaa yulqi tilka rakaa day sànni rakkaa ba amul fatiha kon bu dee ci naaj rakkaa bi manqué fatiha ngaru koor ba noppi fàttali ko ko doo ca dellu soo noppee nga sujjóot bala ngaa sëlmal mel ni ku wàññi amaa ci farata rakkaa bu amul faatiha dañ koy fàtte kon gis nga ne amul dalee wa yaziidu uxraa mu dolli fa beneen ah wa yatamaadaa mu daal di continuer way wa yakunu sujuuduhu kama zakarna sujjóot bi day mel ni ni ñu ko waxe woon ci tar bi weesu fii taarixu si kon lu may masala mu njëkk bi kuy julli fàtte faatiha ci naafila ak ku julli fàtte faatiha ci farat ci naafila boo war a koy boo tax doo ko fàttali ku wéyal ba julli nga jeex nga sujjóot xabla salaam bu dee ci farata rakkaa ji nga fàtte faatiha digal bi baaxul da nga koy wàcc dindi beneen rakk lu leer na wa man nafi asturata ku fàttee saar wa tege ca faatiha awil jafe wala mu fàttee jàng ca kaw awil sir wala mu waroon jàng ci suuf mu fàtte ko dem jàng ca kaw ci naafila ci te fekk mu ci naaj ñetti masal yi nag ñoo tolloo dégg rek moo tax mu boole leen ndax wax na la benn muy fàtte ñaar bi daa fàttew saa ñetteel bu mu fàtte biral ñetteel bu mu fàtte yalu fi naafila fekk mi ngi ci naaj kañ la ko fas wa tazakkara mu fàttali ko baax na rukuuci ginnaaw bi mu rukuuci ba nag dafa rukuuc ba nag si gi daal ne ah man saar yi tege ci paal ak jàngu ma ko wala mu rukuuc ba nag fi daal ne ah man naa ngi julli ci guddi war a jël sama naafila gi ma yàlla ko wala mu jàng ci kaw te fekk bëccëg la mu ne ah man kuy naafila bëccëg da nga ko war a yàlla ma dem biral lu muy def mu ne sama daa day yooyu rek wala sujuuda alayhi du ko wala sujuuda alayhi du ko ma ne ko nag mu ne bi xilaafi faridati wuute na farat bu doon farat moom da koy sujuudal baada salaam wala xabla salaam muy ñeent wa man qaama ila saalisati bu doon julli jóg di def ñetteelu rax dafa def ñaar war a toog taaya mu def fa jëkk di indi ñetteel fi naati la fi ca teg mi ngi ci naati xam nga naati la ñaar ñaar la ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñaar sëlmal mu def ñaar bu yéem a sëlmal mu far ne fa jëkk toog sax def ko nga ne ko def mu ne fa in tazakkara bu ko fàttali ko qabla aqdi rukuuci lu jiitu muy rukoo rukoo bu dafa taxaw jàng ñàkk rek man damay naa bind war naa toog nu muy def mu ne rajaa ne dellu si toog wa sajada baada salaam mu sujjood baada salaam ndax daf lay yokk taxawaay wa in aqada salisata bu fekkee nag fas na ñetteelu rakaaba te mooy rukoo day naa ci la mu dem ba këram bëgg faa def juróom benn rak mu def ñaar far fàttee toog bi mu fàttee toog mu taxaw jàng ba jàng ma jeex mu rukoo door ne ah maa ngi ci ñetteelu rak damay dal ay yéemaan naa ci léegi leeru ko ñaar ñaar ñaar ñaar nga def ñaar far bi mu def ñaar far bii def ñett bi muy def ñetteel rukoo am na ba noppi door a fàttaliku ne moom ñaar la waroon def seen bal te ñu ngi ci ñetteel lu muy def mu ne tamaada day ci julli ga wa zaada rabiata mu dolli ca ñeenteelu rakaaba wa sajada qabla salaam mu sujjoot mu sujjoot balaa selmal nga ne ko lu tax mu ne toogaay bee mu bàyyi ci diggante ne bu fi toogoon dara du ko am bu fi toogoon dara du ko am bi xilaafi faridati loolu nag wuute nag bu doon farat bu doon farat lu muy def mu ne fa innahu yarji'u day dellu si mata zakara saa bu fàttali koo ne julli gi mat na ba mu dolli beneen wa yasjudu ba'da salaam beneen masala ci suuf mooy daa fàtte farata wa man nasiya ruknan ku fàtte farata lu mel ni mi ne naafila ci naafila day naafila fàtte farata nga ne ko dana mu ne kar rukoo ay mel ni ku fàttee rukoo te rukoo farata aw sujuudi wala mu fàtte sujuud waaw walam yatadakkar te fàttaliku hatta sallama ba fàttali moom daal rakkaat bu njëkk bi rukoo wu ci
wala rakkaa bu njëkk ba sujjóot bi am na sujjóot bu mbay far la sëlmal wataala ba julli ga sax yàgg na jékki-jékki toog mu yàgg mu ne ah man de tey bu ma jullee isbaa ñaar rakkaa ya ma doon jiital benn ba benn sujjóot laa jot lu muy def mu ne salaa i aari saa yi si jaamu fay baax na bàyyi rek baax baax nga ne ko ah moom daal rakkaat bu njëkk bi yow kooku ci wala rakkaat bu njëkk ba sujjóot bi am na sujjóot bu mbay far na sëlmal wafaala ba julli ga sax yàgg na jékki-jékki toog ñaar mu ne ah man day day bi ma jullee tisbaar ñaar rakkaa ya ma doon jiital benn ba benn sujjóot laa jot lu muy def mu ne fala i aarita ali si jaamu fay baax na bàyyi rek baax baax nga ne ko ah mu ne bi xilaafil faridati wuute na fara fa innahu bu doon farata yuiduha abadan dafay baax bu doon farata nga toog jàng ne eh man bi may julli tisbaar la sujjóot da ngay baax baax ko nag moo di su fekkee waxtu wa jëm waaye su ne yuiduha abadan mooy da koy baax ak waxtu bu mën a doon julli da yàq loolu kon mooy suñ juróom benni masala yi nga xam ne moo wóotale julli farata ak julli naafi bu njëkk bi mooy ci fatiha bu ñaaral bi saar ba ca tege bu ñetteel bi biral jàng ca kaw bu ñeenteel bi yàllu mooy jàng ci suuf bu juróom benn mooy dolli rakka bu juróom beneen mooy fatiha ak farata ci farata yi yàlla ñaana boole ci fokk xaay suñu bind bi weesu ñu ngi doon jàngal ne ku sëlmal ci sikki sàkk ne julli ga mat na julli ga yàqu na ñaar mooy jamaj ci julli booy fay moom jamaj ci julli goo xam ne fayoo ñooyam ba mu def juróom benni masala masalam fatiha masalam saar wa tege ca fatiha masalam yalu masalam biral masalam dolli raka ak masalam fàtte farata bu yàgg yooyu lañu jàngoon bu ci nekk mu indi ci ay teqantal ko fàtte fatihaak ya ca tegu war a door te ci wa man qata an nafilata amidan aw taraka minha rakaa aw sajada amidan aadaha abadan nee na wa man qataa ku dog an naafilata naafila amidan te tey ko di naafila am benn rakka yemale ko fa te yaa ko tey mu ne ko def loolu aw wala boog taraka minha sajada dafa bàyyi sujjóot wala mu bàyyi ab rakka amidan te tey ko mu ne ko def lii aadaha abadan daf koy baamtu ba faw ba faw mooy bu waxtu ba génne bu waxtu ba génnul da ko war a baamtu ndax julli dee su ko fooyee ginnaaw xas nga ci dugg sañoo am ab rakkaa rek daat ne ah far naa ko bàyyi loolu kenn du ko def moo tax mu ne ku ko def da nga koy baamtuwaat abadan waaw donte na su sunna la naa naafile bi sunna la wa man tanahada ku binni binni mooy nga jékki-jékki ne uh mel ni daam lu lay métti nga jékki-jékki daal di onk loolu ku ko def ci salaati gi ci julleem fala shay alayhi dara waru ko ci nga léeg-léeg nga feebar mbaa nga sonn jékki-jékki daal di binni wala nga onk onk bu métti loola ku ko def dara waru ko ci moom baal nañ ko ko illa an yantiqa bi xarfin lu dul mu tudd aw xarf mel ni muy bindaane wooy su boobaa wax nga ab ñaari waaw akuk yaa kon julli ko yàqu saa boo bindee baal nañ la boo waxee nag ba mu génnee arab bu ñu mën a bind lu mel ni wooy wala ux boo nee ux xam nga mën nañ ko bind alif ak benn xaar wax nga xaraf waaye soo ne loolu kenn mënu ko bind loolu lay wax wa isa saha al imaamu bu imaam jamajee bi naqsin ci wàññi ci julle ga dara ilimaan day julli wàññi ci julle ga dara maanaam jullig ñeenti rakka day am ab toogaay ci diggante ñeenti rakka ya ñaari njëkk ya ñaari mujj su ko imaam fàtte aw ziyaadatin wala dolli imaam daa julli ñeenti rakka jóg di indi juróom mu ne nu mu war def mu ne sabbaha bi ji daf ko war a sabbaal al imaamu maamu sa imaam def lu dul yoon ci julli gi daf wax subhanallah bu dee jigéen day tàccu mbaa mu fottafu mbaa mu takk poojam bu dee jigéen xataa bu la sa jëkkër di jiite sax sañoo ko wax subhanallah waaw da ngay fottafu maa nga tàccu mbaa nga dóor sa pooj yow jigéen bu sa imaam jamajee xataa bu dee sa jëkkër sañoo ko wax subhanallah xam naa bu jigéen ñi jàngoon masala ñi te gëm ko dootuñu taasu mukk mukk ci télé waaw buñ gëmoon buñ jàngoon masala ñi te gëm ko dootuñu taasu mukk ci télé waxuma laa nag ay géew ak ñoom seen yooyu waxuma laa di way nag far bay am ay disque d'or wa isaa qaama imaamuka bis bu sa ilimaan jógee sa ilimaan day julli daal di jóg min rakaatay ni ci ñaari rakka dafa def ñaar rakka ne so jet nar a jóg wuti ñetteel te toogu fa sabbih bihi na nga ko sabbaal nga ne ko subhanallah loolu nga war a wax bu ko defee moom mu bañ a jóg fa in faaraqa al arda su tàqale ko suuf si nag dafa def ñaar rakka war a toog mu ne fa jet ba tàqale ko suuf dafay sabbaal mu wéy nooy def mu ne fattabiu na nga ko daal di topp jugal fekki ko jógal nga fekki ko ñaar rakka la am war a toog taayo defu ko mu am ñaar rakka rek jóg ne soo jot nooy def fattabihu nga jóg daal di koy topp ko defee boo ko toppee su julli ga jeexee buy sëj sujjóot xabla salaam nga ànd ak moom sujjóot xabla salaam wa in jalasat fil ula bu su imaam bi julli tisbaar def benn rakka rek toog aw fi saalisati wala mu def ñetti rakka toog te foofu war am toogaay foqum na nga jóge yow wala tajlis te bul toog maahu ànd ak imaam ku si imaam def benn rakka toog bul toog yow ku si imaam def ñetteel rakka toog fa bul toog yow kon foofu da ngay tàqali ko ak sa imaam benn rakka la am bëgg a toog yow taxawal ne ko subhanallah mu fekk si la waaw wala taqum fa sabbih bihi na nga ko sabbaal wala wa in sajada waaxida ku sujjóotee benn sujjóot ilimaan dafa julli rakaat mu sujjóot ci benn deful ñaar la xanaa bàyyi fa sujjóot wa taraka taaniyatan ak taaniya mu bàyyi ñaar la nooy def fa sabbih bihi na nga ko sabbaal waaw da ngay toog ne ko subhanallah wala taqum maahu bu jóg nag àndeeg moom benn sujjóot la sujjóot nga ne ko subhanallah su ko imaam xamul ne la lu xew nga ne ko benn sujjóot nga sujjóot bu defee mu ñëw sujjóot ko ngeen ànd jóg kon bu sa imaam sujjóot benn sujjóot di jóg bul ànd ak moom illa an taxaafa lu dul nga ragal aqda rukuuihi fasug rukuu ba maanaam toog nga ne ko subhanallah mu bañ a ñëw continuer moom di jàll mu wóor ne boo fi toogee moom moom imam mi caaxaanut day rukkoo da ngay jóg fekkee ko balaa rukkoo ndax nga mën a ànd ak moom ne soo ragalee nga rukkoo mu rukkoo fattabiu na nga ko topp waaye gis nga soo ko xasee topp wala tajlis baada zalika maahu lu doo toogat yow laa fi thaniya wala fi rabia su imam xasee def benn njumte fii day julli rakkaa bi mu am benn sujjóot la ci sujjóot mu daal di siggi jël ñu ne la bul ko topp lu dul nga ragal rakkaa ba fasu nga dem toppi ko boo ko toppee nag bul toogati ndax li nga fi sa julli bi toog wurdu koy am te fi imaam di tooge bokkut ak fi nga war a tooge yow jàpp léegi da ngeen di tàqali ko ci ca kanam moo tax. fa isa sallama bu imam salmalee nooy def yow fa sit ux araka atan uxra yow da nga fay dolli beneen rakka ndax tàqale koo ngeen moomatu la badalan nga wóotal ko min al rakaati allati algaytaha rakka bi nga xam ne imam daa juum defaru ko nga bàyyee ko ko ba pare wacc rakkaa ba indi fa beneen rakkaa yow baani yan sas ko ci la nga jot na am ci jullit déedéet soogu ñaareelu taay bi sax doo ko def wa tasjudu xabla salaam nga sujjoon nag bala ngaa seen mag di nga taxal wul imam ah fa in kuntum jamaatan bu ngeen nekkee mbooloo nag ci jàkka ji seen ilimaan di julli raka bi mu sujjoot ci benn sujjoot ngeen ne ko subhanallah mu jaxasoo ca toog siwul def ko ngeen jóg fekki ko mu ñëw toog julli ga yàqu ngeen bàyyi ko mu ne bu ngeen nekkee mbooloo fal afdalu la gën lakum an tuqaddimu waaxida ngeen jiitalaat keneen jegaate ilimaan bu ko defee kooku yutti mu bikum mu mott léegi yéen jullit ñi ndax li wax leer la waaw mooy imaam day julli def benn ra benn sujjóot siggi rek na ñokket ñu ne la yow bul jóg nga toog fi nga toog ne ko subhanallah jàngoon nañ ne dafa war na cëpp sujjóot dellu ci la nekkoon imaam moom defu ko xanaa rek nga sojjet taxaw nga toog xaar ko ba yëg ni kii def na ruko nga ne ñokket fekk ko mu daal di continuer di julli bi mu ñëwee ak si toog au lieu mu effacer rakka bi bañ faa toog mu faa toog yow nga ne ko fu ñukk ne ko man fii wuruma fee toog léegi duutoo ànd teg moom yow say toogaay da nga ko toog waaye ay toogaayam moom tënkatu la ndax fi mu toog baaxul nga ne ko nag kon imaam yow demal ma dem ak sama bopp la gën nag mooy nga ñu ne benn waaye ci mbooloo mi lii def ko ci kanam moom mi moom mi julleem jaxasoogul ni ba su imaam def mu continuer ni ñu julli gi ana imaam moom ñu dégagé rakka bee nga xam ne moom la imaam juumoon nag ilimaan bi wala kenn ku julli ku ne li ngay def mooy yëg ne wacc nañu rakka boobee waaye li fi nekkoon nag dañ ciy sos ci rakka bu njëkk bi la imaam nekkoon kon bii mooy suñu deuxième ci ci deuxième la nekkoon kon bi mooy suñu troisième maanaam bañ sànni du du ñu compter léegi liñ jot a am seen baax ca la ñuy compter yàlla ñu yàlla dimbale xanaa bu ñu duggee ci laaj yi xëy na mu xaw a gën a leer tuuti incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah def nañu benn
rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ñangi woon ci bunt bi mujj ci laxdar yi defe naa tey mooy nekk insha allah suñu dars bu mujj ci téere bi yàlla yàlla dimbale bañ dal beneen ba mu jeex te ñu dégg fiq ñun ñëpp yonent bi nee na ko yàlla na mu ceew lu baax da ngay dégg fiq wa ida zaada al imamu sajadatan salisa fa sabbix bihi ولا تسجد معه وإذا قام الإمام إلى قامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه نانا muy masala mi imam daa sujjóot benn sujjóot siggi wax rabbi xfir lii sëggaat sujjóot ñaar siggi toog ñu defe ne ca lay yem mu defaat ñetteel mu ne wa isa zaada bu dollee al imaamu yilimaan sajadatan saalisatan ñetteelu sujud fa sabbix bihi nang ko sabal da ngay wax subhanallah wala tasjud maahu waaye nag du sujud ànd ak moom te ilimaan su sujudee ñaari sujud nar a def ñetteel yow bul ànd ak moom da nga koy wax subhanallah mu yëg ne yokk na beneen sujjóot su ko defee bu jullee ba julli ga jeex ba mu sëlmal mu sujjóot baada salaam waaye yow doo ànd ak moom ndax li muy def day yokk booy bu njëkk bi mu ne way saa xaamal imaamu ilaa xaamisa su imaam jullee ñeenti rakka jóg nag di indi juróomeel mu ngi mel ni bi doon ci liggéey bu imaam jógoon di indi juróomeel rakka mu ne nu ñuy def mu ne tabiahu da koy topp jóg taxaw man ta yàqana muujibaha kum wóor ne daa war a jóg su imaam defee ñeenti rakka war a toog taayu sëlmal mu jóg di def juróom képp ku mu wóor ne war naa def juróom da nga jóg ànd ak moom waaw aw wala boog sàkk fii wala nga sikki sàkk ne war naa def cëb juróomeel da nga jóg ànd ak moom ndax jàngoon nañ si ci ginnaaw rakka bu yàqu ñu sànni ko indi beneen place am loolu la ñu jublu ci juróomeel waaye juróomeel boo xam ne julli gi dara yàqu ci te nga tey ko di ko indi loolu mu ndox li tax ñu naan wóor na ne war na koo def mooy yëg nga fu julli gi dammoo am na rakka bu am benn sujjóot wala rakka bu amul ruko wala rakka bu amul fatiha yooyu mu wóor la ne lii am na kon su imaam jógee wuti juróomeel na nga jóg ànd ak moom wala wóor la waaye am nga sikk sàkk nga ne imaam mi daal li tax mu jóg di wuti juróomeel xam naa daa am julli bu lu ci yàqu ba tey da ngay jóg ànd ak moom loolu la wax mu ne wa jalasa day toog nag man te yàqana ziyadataha ku mu wóor ne imaam mii dafa juum yow da ngay toog doo jóg ànd ak moom wóor na imaam mii cinquième rakka bi du yor waru koo def yow it da ngay toog kon ku mu wóor ne war naa def juróomeel da ngay jóg ku mu wóor ne waru koo def da ngay toog ku sikki sàkka da ngay da ngay jóg ànd ak imaam waxaat ko ku mu wóor ne imaam war naa yokk juróomeel da ngay jóg ànd ak moom ku mu wóor ne wuru koo yokk da ngay toog ku sikki sàkka da ngay jóg leer na fa in jalasa al awwal nee na ku njëkk ci su toogee ku njëkk ci su toogee mooy kim kim wóor ne imaam li muy def war na ko def wa qaama thani ku ñaari ci it su toogee badala salaatu julleem yàqu maanaam ci mu wóor ni imaam war naa def juróomeel su toogee julleem yàqu ci mu wóor ni imaam war ta def juróomeel su jógee julleem yàqu wóor na ku ne imaam war ta def cinquième kon su jógee ànd ak imaam rek julleem yàqu wala ci moom wóor na ku ne imaam moom war naa def cinquième moom su toogee julleem yàqu moo tax mu ne fa in jalasal awwalu wa qaama thani batalat salaatuhu julleem yàqu wa isa sallama al imaamu bu imaam salmalee qabla kamaali salaati lu jiitu julli gi di mat ñetti rakkaa la julli daal ne asalaamu aleykum wa rahmatullah tegeer wala ñaar rakkaa la julli daal ne asalaamu aleykum wa rahmatullah tegeer wala beneen julli te du suba maanaam daal imaam sëlmal na ci julli gi ma dugg nu ñuy def mu ne sabbih bihi sabbaha bihi daf koy sabbal man xalfahu ki ne ci ginnaaw imaam bu sëlmalee ci julli gi ma dugg ñu ne ci ginnaaw ñeent ñi kenn ku ci wax subhanallah ñeent ñi moo tax ñeent ñi fii yonent bi nee na na nekk ulul ahlaami wan nuhaa ulul ahlaami mooy ñi mat góor annuha mooy ñi am xel ñi am xel nag lañ jublu mooy ñoo xam ne bu julli gi jaxasoo mën nañu wax imaam lu ko defar mas nañoo dal mbàkke imaam jamaj ba gaa yi sabal ko di mënuñ ko wax fan la jamaj bi nekk imaam daal ne ko dum woon ko du woni ñëpp ne cel naan ko waaw ñu rakk ji nekkoon fii bàll moo ne imaam da ngaa julli ñett sëlmal da ngaa defe benn mu jóg daal di moti maanaam foofu loola tax alayhi salatu salaam bëgg fii ulul ahla ulul ahla bi woon nu xaaj bi ci kaw su ko defee bu julli gi nag kaaj ñu ne ko subhanallah bu tey su jaaxlee wax ak ñoom waaw jàkk waaw Dakar moom bu imam Sall dama je moom ñëppay wax loolu subhanallah subhanallah subhanallah ba ñu fanweer ak benn itam bu ko defee ñaare imam yu bari nañ ci jaxasoo fekk na ci imam bi mag a mag di jaxasoo joo xam ne keroog jàkka ji mujj na ñuy def nii waaw kurpañ yi di bëgg a rombaloo c'est ci jamono rek ndeysaan ci timis waaw mu ne fa in saddaqahu su dëggalee ki ko sabal kammala salaatahu day mottali julleem waaye wa sajada baada salaam maanaam bi ko waaji ne subhanallah wóor na ko ne moom jamaj na dafa jullit dafa sëlmal timatu mu jóg mottali julleem day sujjoot baada salaam ginnaaw wóor na ko ne kii mat wa in shakka bu sikki sàkkaana fii xabari yi ci xibaaru waaji dafa jamaj am ku ne ko subhanallah mu xool daal ne ah séeréer bii day warta dëgg fiq ba may sabbaal daal di sikki sàkk léegi dafay bàyyi séeréer bi sa ala ad lay ni laaj ñeneen ñaar ñaar ñoo xam ne ci jàkk ji ñu màngale mu ne yow damaa yokk kooku ne ko ah waaw waaw mu ne yow mi yokk naa kooku ne ah waaw waaw bàyyi na séeréer bi daal di laaj ñaari tukulóor ndax dafa yokk wala déet ñooñu nag daggan nañu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bis mu julli tisbaar daal di julli ñaar rek sëlmal daal di déplacé wu nag dem toog fee def nii loxo ah saaba yi kenn ñi mu wut wax ñoom allahu akbar parce que alxuraan dafa ñëwoon ne leen eh bu kenn jiitu ci yàlla ak yonent yaa ayyuhaa llaziina aamanu laa tuqaddimu bayna yaday llaahi wa rasuulihi kenn ñemeetul bu yonent bi waxee question wala dara ñu wax ñëpp na ci kenn mel ni ay picc moo dal seen bopp yi. am na nag benn saaba boo xam ne moom bi mu dugg ci lislaam yàggagul moom yarawagul ñu saaba yi yaraw xam nga loolu day am ngeen baal loolu day am léegi ci xale yi ndeysaan kuy door a dugg ci yooyu ñu dugg noonu. lu mag wax mu wedd ko waaw parce que yaroo gudd lool bu julli yem saa yi nii lay def di ploncé moo tax boo comprendre léegi léegi tey ngeen jote da koy comprendre xam ne affaire yi y a quelque chose parce que waaw booy doon jóge ci terrain ba ñëw ci terrain bi il faut nag ah loo nekk xam ne